fi mu ne nii bu dee li ñu tax a daje tey ñaari téere la benn bi mi ngi jëm ci dunduk sëñ mag bi mi ngi tudd euh, Cheikh Ahmad Bamba Abdullahi wa Xadimu Rasuli Sëriñ Tuubaa ni mu nekkee jaamu yàlla ak nekk liggéeykatu yonent bi salallaahu alayhi wa alihi wa sallam di téere boo xam ne ay gëstu la yu wuute ñeenti gëstu yoo xam ne dañ koo defoon lu jiitu doon ci waxtaan ci ay xaaj ci dund gi njëkk muy dem ci géej gi lu aju biir géej gi ak bi mu nekkee gànnaar ak bi mu nekkee résidence surveillée ci Sénégal diggante Thiéyène ak Ndiarème yooyu lañ dajale nag gën koo xóotal gën koo faram-fàccee ba génne ko ci téere boobu nga xam ne mat na juróomi téeméer yi xët moom la ñuy gaaral ni tey. ñun dañuy sof ci li kàngam yooyu defal ndax kàngam yooyu lu ci ku ne daa wet goo bind. ñii dañoo bind ay jaar jaaram ñi bind ci ay karamaatam ñi bind ci xasida yi nga xam ne an wet gu ne daal ci lañ gën a jëme yitte ñun nag daayira bi di mbooloo xam ne yitte yëpp dañu bëgg a boole xam ne téere bi lu tasaaroo woon ci téere yooyu mi ngi ci lu tasaaroo woon ci téere moom lañ boole ci téere bi kon xëy na li ko wut yeneen yi mooy téere yi ci des su ci daa am genn wet gu mu gën a féete jàng wetuk taarix kese kii jàng wetuk xam-xamu sëriñ bi kese ki jàng ay cosaanam kese téere bi nañu boole yooyu yëpp waaw kon jàpp nañ ne ngir am delluwaay boo xam ne benn lay doon gëstukat mën cee dellu yooyu yëpp mu fekk ko ca. fii muy waxee yéen ñu ngi koy tekki tubaab français te incha allah danañ ko tekkiwaat ci anglais kon arab bi moo njëkk ndax moo cosaan ndax sëriñ bi ñu ciy waxtaanee li mu bind lépp ci arab la ko bind waaye danañ ko teg ci làkk yi nga xam ne yëpp adduna soxla ko nag dañoo bëgg mu dem fépp ñu xam sëriñ bi fañ ko la ci limaa dara na fa lañ fa bàyyi Cheikh Mour Bassir mi bu yàggul génn na fi ak tournée bu yaatu ci Europe ak eh, ci lenn ci réew yi assi fu mu dem yóbbaale na ko ko daanaka dañoo bëgg mu tas fépp bibliothèque yu mag yëpp incha allah danañ ko fa yóbbu te tam am na yu jot dem sëriñ Mouhamadou Mountakha it gan ñi fi ñëw ñëpp kuy dem dal la ci jox nga yóbbaale. téere bi juróomi téeméeri xët mooy 500 pages yi. dunduk sëriñ bi njëkk muy dem ci géej gi comme ay cosaanam ba nim demee ci géej gi benn partie la tukki géej gi boppam dafa xew. fuñ jaar yi ko sabab ci zahir ki baatin yooyu mag ngi ci ba ñibbisi gi nekk gànnaar la xew gànnaar ak la sabab gànnaar ga lépp mu ngi ci téere bi ak nekkam ci yéen ak njaareem ba dañu bisee Touba ñu yokk ci nag ay mulxaqaat yenn yi ay photo la yenn yi ay seere yoo xam ne boroom xam-xam yu bari yu mag ñoo ko seere ci moom yenn yi euh, ay desit yi bi mu amoon ci njaareem ak Touba nga xam ne téere xam-xam yu mag mi ngi ak nag bi mu daan bind téere yi muy dellu référence yi mu daan dellu dajal nañ ko fenn yi ñi xam yëpp ñu tudd leen jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñoom ñàkk xam moo taxoon ñu doon bind loolu danañ ko saafara ndax wutal nañ leen delluwaay boo xam ne mën nañ caa dellu am ki nga xam ne nag yeneen yéene la am moom moom itam bu bindatee am na lu ne ci wet gi luy wet dina lim bind bu wuuteeg loolu ñu xam ne wérul